alors salaamaaleykum chers internautes ñu am mbégte kontaante di fi teew tey xam ngeen tey euh, ñu ngi jëm si très bientôt ci audience Adji Sarr ak euh, Sonko ñoo war a jàkkaarloo moo tax moo tax tey ñu dalal fi ñaari euh, avocat ki nga xamante ni mooy représenté Adji Sarr di maître El Hadji Diouf ak ki nga xamante ni mooy représenté parti Ousmane Sonko di maître Tall ñu bàyyi maître El Hadji Diouf mu nuyoog internautes yi. jërëjëf. soxna si ñu ngi rafetlu bu baax ci invitation bu am solo bi nga xam ne def nga ko mu jëm rek eh, ci pour ñu leeral li nga xam ne fa jëm macha allah ndam lu rëy li nga xam ne ñuy xaar eh, di kontaan di am mbégte bu baax a baax. Eh, ci dalal bi nga xam waaw incha allah dañu dañu am confiance rek gëm sunu bopp jërëjëf. waaw jërëjëf soxna si ñu ngi lay baax. c'est parce que maa ngi jégalu sax ñi nga xam ne ñu ngi gis may taxaw ak saari nit yi mel nii. vraiment dama si am lu ma si métti trop su ma xamoon ni saari nit yi mel nii nga may booleel. Ah, vraiment non dafa am nit ñoo xam ne amuñu. bàyyi leen ni lay mel dañu arrogant réew. dañu ko soxna si. soxlawul soxlawul soxlawul ngay am leen loo koy kii. nii la mel dañu arrogant waaw waaw dañu réew fuuy d'accord xam naa dinañ ñëwaat foofu ci kanam tuuti mais balaa xam ngeen ni bientôt loolu mooy tuuti dafa lay noq waaye na rafet dara déet na rafet nag met non non non dañu parce que ñoom bu ñu toogee ci plateau dafa dañ ñi met yaa ngi ci euh, plateau nit bu amul xam-xam métal vous plaît métal s'il vous plaît xam nga nit xam nga man damay nuyoo d'accord mais nit su amul xam-xam mais booy nuyoo la la la may waxe waaw waaw calmez-vous la may waxe yow da ngaa dégg ma tudd sa tur. Eh, da nga na réew. s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît maître El dañu réew. Euh, respecté leen un peu ñiy seetaan respecté leen un peu ñiy seetaan. di ngeen di jàkkaarloo ji feneen fu dul fii. mais da ngeen ñëw puisque maa leen invité. waaw d' may déglu tamit man man je vous respecte. s'il vous plaît dafa je vous respecte. d' accord mais li mu wax waru ko wax. mais mais calmez-vous d' abord. calmez-vous di ngeen jàkkaarloo ji yéen ñaar di ngeen jàkkaarloo ji très bientôt ci kanamu juge bi fii du kii fii spectateurs yi. ngeen war a leeral mbir mi waaw d' accord maître merci beaucoup. léegi maître El Hadj ñu ñëw ci yow. yéen plaît amul crédibilité di seetaan sóoraale leen téléspectateur yi leen di seetaan les maître euh, euh, Diouf yéen yéen ñi nga xamante ni yéen a jiiñaate wàllum viol la lan ngeen yaakaar ngeen yéen di ngeen ci am ndam waaye incha allah soxna si macha allah lam ndam lu rëy dina mel ni uh-huh. bi booy ñaa ballagay bi bi ba bu ko booy ñaa yéen dóor ci suuf ndam lu rëy ndam ngeen ci am te ngeen am ndam yéen da ngeen confiance trop mais mais firnde bi ñu ci am soxna si. ndam li muy am bàyyi ko mu àggale bàyyi ko mu àggale bàyyi ko mu àggale ba pare voilà soxna si non damay déglu déglu ko mental déglu ko yow dinaa ñëw ci yow allez-y mental dama ne Diouf incha allah soxna si macha allah alhamdulilah laaw la cat subaana ma laam Euh, li nga xamante ne bii moom moo tax ma dañuy am ndam. Mhm. parce que sama client. Adji mhm. Sarr. Mhm. xam dañ ko téye. teg ko ñaari fetal. ñaari fetal. lañ ko teg. client. teg ko ñaari fetal. xale bu ndaw bu xamul dara aji. teg jël ko. Mettal s'il vous plaît may ko mu àggale ba pare après yow it nga indi yow it sa contribution nga wax sa xalaat yow it may ko mu wax ba pare jël ko parce que attention mhm. bu njëkk bi la njëkk ñëw mhm. aji xale la mhm. mu koy wan ay awra ñu balaa kaasal kenn da ko wan awra da laa wan awra am d'accord d'accord te metta xal ma allez waaw bàyyi ko mu développer ba pare après yow tamit su fekkee am na loo ci wax waaw tuddoo turam waaw d'accord mais may ko mu mu développé ba pare non méttal méttal may ko mu développer ba pare may ko mu yeggale ba pare waaw su paree yow it nga wax lu am fulle su su su paree nga. yow la may ko non non non. da nga koy def plateau parce que d' accord d' accord ah, léegi léegi may s'il vous plaît léegi da nga koy may mu àggale ou bien xoolal waaw d' accord léegi d' accord xaaral non dina ñëw dina yow di nga wax sa xalaat di nga wax sa xalaat doo bay ko moom it mu wax xalaatam ba pare waaw na wax non na dina si ñëw yow nga wax sos bi am na wala amut yow it di nga leeral waaw may ko may ko mu pare ba pare may ko mu pare si vous plaît respecté leen ñuy seetaan waaw may leen ñuy seetaan yéen tamit respecté leen ñuy seetaan quand même émission la ah tout le monde l'attend quand même waaw d'accord mais xaaral mu pare métal métal je suis respecté respecté les gens waaw d'accord bàyyi mu pare tey mét xoolal mét alaaju yow it ah non respecté ñuy seetaan d'accord s'il vous plaît may ko woon na leen ñi war a seqal seq naa ñoom te nee na nee na yàlla tax waaw d'accord d'accord métal mu ni dama dimbali waaw d'accord non xaaral te saa bu wéetee ndaw ci am ca dara na leeral loolu Euh, mën mën nga ñu bàyyi ñu mu àggale s'il vous plaît Maître Tall. <coughs> allez-y. soxna si parce que <coughs> avocat boo amee argument. Mhm. am fulla am fayda am preuve yoo xam ne da bari coow. Mhm. Euh, tubaab nee na les tonneaux vides font beaucoup de bruit. ci li la tax a jóg. Mhm. lim la laaj da see war a tontu. mais moom mooñ day dimbali ndaw si. d'accord ndekete nit amul ci dara da koy dimbali te yàlla tax. Mm-hmm. ndekete li mu koy dimbali lépp mi ngi koy dimbali koo. Mm-hmm. mi ngi koy dimbali koo. ci naka du ko wàcc. ci naka. du ko wàcc yow am nga ni preuve que ni loolu tamit moom tamit mi ngi ciy def génne preuve yi. preuve yaa ngi nii date yi ñu joxe yëpp ni Ousmane date am yooyu yëpp datee na ko moom it ndekete wu gisal. mais mais mais maître loolu binduñu mais mais

Euh, ni nga euh, gérer sa émission émission parfois il faut nga que nit ñi amul preuve dañuy ñëw di créer ay boucan di wax loo xamante bi aju mhm. soxna si Adji Sarr xale la xamul dara magum mhm. jëm ñëw teg ko ñaari fetal mais xale bu xam tëddee ko tëddeewaat ko ah? mais xale la boo xamante ni xam nañu mag ñi xam non non ko <laughs> kañ la ko xam moo ko xamal li affaire massage moo ko ko xamal affaire massage ma ne bu doon client moom Ousmane Sonko bu doon moom Adji Sarr du xam dara ba tey macha allah mais xale bu lislaame mais Ousmane Sonko moom dafa ne mais Ousmane Sonko dafa ne moom dafa feebaroon. Ah mais nee na dafa feebaroon mais mu dem foofu. Adji Sarr la. ah du fajkat raay la waa d' accord kon ñu may. bàyyi met tamit d' accord aji mun ta faj. mënut a faj moom aji. amul ay diplôme aji. waa d' accord dàmp la raay. d' accord nee na nee na aji dàmpa raay la man ah. te yéen da ngeen ne Sonko dafa. dara la euh, dafa feebaroon. mu dem foofu noonu di faju ba viol ak ay mhm. fetel génn ci. Mhm. xam nga ñoom. Mhm. Euh, dañoo wax ni aji. dafa ëmb moom moo ko wax si teewaayam moo ko. ko ah, wax. mu dee ko ma wax ah, aji wax na ko aji ma ne loolu waxaat ko aji waxu ko moom mu ko wax ko ko waxal dama ëmb ah. bi mu noppee nag aji ko ah def naa erreur ëmb mais mais s'il vous plaît may ko mu àggale ba pare waaw d'accord soo paree yow nga kii kan moo ko wax la met El Hadj est-ce que li ngay wax am nga ci preuve eh, eh, preuve yëpp am accusation yi day waar la de te man li ma jaaxal te Adji Sarr s'il vous plaît may leen ma tuuti d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît waaw d'accord d'accord xaar yow si kaso bi ngay dee métal métal s'il vous plaît kii si kaso bi lay dee non kaso bi waa d'accord su leen demee si kanam tuuti mais mais maître Diouf El Hadj Diouf El Hadj may ma tuuti d'accord may ma tuuti may ma tuuti waa d'accord waa d'accord may ma may ma tuuti waa may ma tuuti waa d'accord may ma tuuti am nga gàcce fépp bitim réew maître El Hadj Diouf dootoo fa dugg d'accord fii si réew mi d'accord man mais mais mais mais quand leen ñuy seetaan s'il vous plaît. man ma dem Gabon. vraiment man dama dépasse en fait. respecté leen fa la sam li ngay def xale yow képp ku ñëw si yow. d'accord d'accord avocat bi a dem Gabon su ma dem Mauritanie. mais mais il est reconnu avocat du peuple. mën nga jox carte mën nga jox carte. di dégluwante tamit da ngeen di dégluwante. da ngeen di yow wax nga li ngay wax mais mais. tey wax nga moom moo wax nga jox ma kàddu. waaw xaaral ma ma ma àggaleeg moom xaaral ma àggaleeg. soxna si amal ku la ci sa débat amal ku la ci sa débat mais c'est mon émission quand même il faut respecter les. non non non comme journaliste RTS rek yow kii amal ku la ci sa débat. kii RTS. mais amal ku la benn jarbaat sama benn jarbaat laa ko yóbbu. mais mais taal mais taal mais taal mais mais mais. oui ma sama benn jarbaat laa yebal. mu ne ko dama amee problème.

surtout ngi ci biir nee na yow tamit não nga tá não não não tá não não não não não la. não não não não não não não não não la não não não não s'il vous plaît may ko may ko may ko não wax quand même may ko não wax. may ko não wax quand même não le não não d'accord maître. não não s'il vous plaît não may ko mu expliquer não tamit não d'accord não dina ko não não mayal não não tamit não mu wax quand même may ko não wax não débat bi il faut não não não ko não não débat connaissance en français parce que ah non.

seize yoon yi nga xam ne dem nga ci moom waaw seize personnes. seize personnes yi nag waaw bàyyi ko mu pare quand même. dañuy nekk ñu nekk seize yoon mais est-ce que ñu ngi tag émission bi tamit ñu bàyyi la ñuy ñaan parce que nit ñi mënuñoo déglu parce que dañ leen teg fii pour ngeen leeral il faut qu'on comporte civilisé. voilà. yaa ngi ne seize yoon nga dem ci moom il faut qu'on comporte civilisé donc. ñàkk lu mu wax ah, ñàkk lu mu wax mais da ngay déglu quand même. seize yoon seize yoon nga dem ci moom seize yoon. Métal bàyyi ko mu wax. s'il vous plaît seize yoon nga dem ci moom seize yoon. Métal s'il vous plaît. s'il vous plaît da nga bàyyi li ngay wone bàyyi ko mu wax. li ngay wane ba ko. lépp li ngay wane nag mi ngi si internet bi. am am nañu machine machine def nañ ko suñuy machine. Eh, teg nañ ko fi ñu war a teg lépp li nga wane def nañ ko suñuy machine. xam nga ko. waaw baax na alors métal s'il vous plaît li nga dugg nii xamoo ko sax. bàyyi ma mu àggale fii nga dugg nii. fi mu nekk nii hmm. dugg nga ba si baat génn moo lay tëx. te dina métti si yow trop. da ngay euh, euh, dana métti si yow trop. Maître El Hadj yaa ngi doon wax si euh, seize personnes yi Adji Sarr tudd. jërëjëf merci seize personnes yi Adji Sarr tudd. Hmm. loolu faute de frappe la. <coughs> parce que mi ngi mel ni rek. Hmm. ñoo doon laaj. naan ñan nga bëgg ñu dimbali la. wegi muy lim ay tour ci la maître radio Hadj Diouf daf may dimbali tey bëgg naa amee Khalifa Niass dimbali ma waxul dimbali de bay li ngay def s'il vous plaît bu perturber bu perturber plateau débat di def preuve jam xanaa di ma am preuve yaay de affaire bi mbiru dimbal la pour mu lim ñi nga xamni ne ñoo japp mais ay sa waxu dimbal de. non dañu dag wax maanaam ñi ko doon darem teew daal la don daal mberem la yow xala ay woyuma nga. mu naan ni ko doon mberem teew la ko waxee daal mbérem mbérem teew wax sa diggante yàlla non ay ma yàlla nga naan maanaam dama ko waxatal say wax na rafet yow parce que say wax dafa rafet parce que mënoo def émission ba noppi nekk aussi tamit journaliste Sonko non du ma journaliste Sonko non non non je suis da ngeen ko ragal da ngeen tapet da ngeen ragal Sonko da ngeen ragal Sonko je suis là pour le peuple je ne suis pas là pour Sonko ni ni wax lu ko neex wax bàyyi ma wax ah, bàyyi ma wax déedéet man nga jël ba di ko tuutal dañ woo fii pour ngeen leeral na président l'émission pour ñu leeral pour Sonko nii pour dañu ñëw ngir dem ci débat bu am solo ah, allez-y pour procès mhm. procès mënu leen fexe ba du am loolu ngeen di bañ waaye day am waaye foo leen ah. yéen ngeen génnee preuve yi réellement yéen génne preuve yu leer am na ay preuve mais pourtant woo nañ leen ay jamono génne leen preuve duñ ko génne procès lañu xaar procès lañu xaar mais mais sénégalais yëppay laaj aussi preuve ah soxla nañ ko dugg preuve bu demee procès ñu gis mais ngeen kon war ngeen def procès public lañ a def public lañu wax nettal fan ngeen teg la fan lu tax ngeen bañ procès public ragal rek parce que xam bu ñu procès bi am problème xam damay wax bu neex parce que lay def journaliste sonko sonko ñun d'accord am nañ preuve fa am nañ preuve. ne ko mu lire preuve am nañ preuve ne ko lire ne ko lire en français na lire preuve bi. na na lire. am nañ preuve ne ko mu lire preuve ñëpp ko jëlee. am eh, nañ preuve hôpital ba am nañ preuve. gendarmerie am nañ preuve. fesse doigt de six fépp am nañ preuve ba pare ñu ci loolu. Mhm. dañoo am preuve ci moom mii nii woon da koy dimbali di ko dimbali ko preuve yëpp mi ngi suñu ay machine dañuy bàyyi ba noppi lii ba mu mm. ba mu pare ni pare na moom ñu jël ay dossier ni ko bàcc si dëri ba pare mais mel ni fu leer la teg mbir yëpp mi ngi ak ñun mais moom Adji Sarr moom ah. dafa mel ni fu nañ la teg mbir mi kii benn preuve ne la wax benn preuve léegi ma jébbalu si moom benn preuve d'accord dinaa ñëw si loolu d'accord mais man damay ñëw si yow keroog fan yee nga def benn vidéo di mel ni luy rëccamtiku pare na ci de li rëccëmtiku pare na ñu ñoo ko bàyyiwul wuy ma eh, dafa bëgg eh, daal naan genre dafa mel ni dañ la dugal daal nga bugg ci gën a benn live la montage mais mais mais attends bi mun nañ ko fi génne loolu kii yow yàlla mais seetaan la live fan yéene net live bi ko def ko dialogue bi dialogue bi sooy bu def hmm. boo ko demee ma ngi fay waat si yàlla naan ñëmut ah waaw te waat bi boo indee kaamil du ko waat ñaata yoon kaami bu ñu ko accusation yu day waar tamit waaye El Aji Sarr lu mu wax tamit. mën nañ laa limal fépp dem fépp. dem fi dem yëpp mbuur yëpp nga ko mbuur. Hmm. yóbbu nga ko góor gi ba. yóbbu nga ko Sika Fall yóbbu nga ko Yoff yóbbu bu leen xeex déet ah ñu ngi xeex di.